auditeurs yi xibaar li ci gën a fës euh, mbas mi di corona dugg ca pencum ndaw réew mi ba sax faat fa benn député bu jigéen waral kilifa jëli matuwaay ngir sàmmonteeg tegtal waa kër docteur ngir mucc ci jàngoro ji bu fekk jamono jooju waa ministère bi yoon njàng mi di leeral ne xalaat guñu fi mu toll nii te ci l'école yi ndax mbas mi matuwaay yëpp ne neen jël nañ ko ngir mbas mi nag bañ a law jaarale ko ci école yi ARMP di kuréel gi yitteewoo ci gi génn seen rapport yu at 2018 ak sax ci yemoog Juaba di kuréel guy xeex setal xaalis bu leewul ci Afrique di naqarlu li geneen kuréel gi di sanctifié wàllum yorum xaalis ci réew mi génnew rapport depuis 2014 daañu teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay yi mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne si lu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj mbokk yi ñu leen di nuyu del di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door ak mbas mi di coronavirus laal ay député yu nekk ci assemblée nationale am na sax benn député bu jigéen bu ci faatu di Marie-Louise Diouf ba sax jëbal nañ ko boromam dem ci ngoon ca sëgg jël ci Yoff député bii di Mamadou Lamine Diallo moom tamit xam na ne am na jàngoro ji am na leen cas suspect foofu ci assemblée nationale Salif député ba woon di Marie-Louise Diouf coronavirus moom moo ko fi jëlee te moonte ajuma bi weesu rekk ci ay xabaar mu nga woon assemblée nationale moom jébbal nañ ko boroomam ci sëggu jullit ya ca Yoff waaye du moom rekk la Covid 19 sonal ci assemblée nationale ba tëral ko fa Mamadou Lamine Diallo député la moom it amee na doomu jàngoro ji ca yaramam moom sax moom moo ko xamale ci twitteram am na yeneen député yoo xamante ni lu ñuy wax ay cas suspect moom lañu ñoom testé nañu leen résultat ñu ngi koy xaar assemblée nationale ci diggante député yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ministre yi la wàllum kaaraange tax ba nee ñu dañ xaar bi dafay wéy ci assemblée nationale ci diggante député yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ministre yi la wàllum kaaraange tax ba nee ñu dañ koy def li ñuy wax huis clos maanaam dañuy tëju ibbi luñ ko journaliste yi ibbi luñ ko tamit askan wi ñu mënta ñàkk képp ñoom ñooy teew ca bërëb ba président groupe parlementaire ya fa nekk ñoom ñoo leen di tànn ginnaaw réunion ba ñu amal leen woon ci seenub biir bi bii di ñëw sax la war a jeex bu fekkente ni sukkandiku lañ ci ñoom li ñu xamal ñu fàttali ne guddi yi weesu takku masque ci assemblée nationale ca biir tumuranke woon na fa loolu li ñuy wax mesure barrière tamit di gi yi woon na fa doole ci diggante député yi am na ay dogal yu bari yoo xamante ni jël nañ ko ci pencum ndawu réew mi ngir dàkkee fa doomu jàngoro ji di virus Salif Sow ni nga ko waxee kon te pencu ndaw réew mi jël nañu matuwaay ngi daldi fay génne corona bi fa dugg euh, matuwaay nak dañu daañu ko fësal te daañu sàmmonteeg moom rawatina huis clos yi nga xam te mom lañuy def li dess ci li di natal gu ñu nattal ministère yi koppar yi ñu wara a liggéey chat mi ñu dégmal di 2021 kon léegi euh, huis clos lañ koy amal manam daanaka lim bu néew ci député ño fay téw dañ ciy déglu leeral yi euh, njiitu commission santé bu assemblée nationale soxna Awa d'abord damay euh, jaale waa Sénégal yëpp jaale famille yu suñu collègue euh, Marie-Louise Diouf jaale le président de l'Assemblée nationale di wax ne vraiment nit ku baax la woon nekkoon ak ñun nekk bu rafet aussi Assemblée nationale di jaale bu baax son excellence monsieur le président de la République tam parce que si njabootam la bokkoon di wax ne tamit suñu euh, collègue Mamadou Lamine Diallo moom itam gis naa ne nee nañ testé nañ ko positif dañu koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba mu delluwaat ci sagom leneen li ci des nag mooy ñun ñëpp dañuy taxawaat rek gën a respecter les mesures barrières ndax nag comme ni ñu ko waxee le corona est toujours là donc lu ñu mën ci takk masque lu ñu mën ci désinfecter suñu ay loxo lu ñu mën ci respecter la distanciation sociale ñu def ko. gis nañu assemblée nationale temps yi euh, loolu xaw na soxe masque yi euh, ak distanciation sociale est-ce que laajul ñu xoolaat euh, jëfin yooyu. waaw waaw xam nga tam bi ñu ñëwee section budgétaire yi. député yi bu ci nekk da nga ñëw ak sa volonté ñëw ak sa yéene pour ñëw liggéey. donc loolu moo tax ñoom ñëpp ñu ñëw rek soobu ci liggéey bi. am na ñoo xam ne ñoom ñu di doon takk masque wax dëgg yàlla. boo demee bay jël parole nga dindi sa masque dem jël parole ñëw toogaat. boo paree nga takkaat sa masque. waaye comme xew-xew bi am na dañoo gën renforcer les mesures barrières looloo tax sax tay dañoo jël décision ne nañ liggéey en huit clos donc plénière bi ñu def tay si vice président yi ak président de commission yi kese ñoom ñoo fa nekkoon ak ministre bi nga xam ne dañoo wàññi ay accompagnant wam ñëpp takk masque balaa ngay dugg nga désinfecté say loxo bu ko defee ñu def plénière bi si jàmm ak mu nekkoon Awa Guèye di njiitu commission santé bu assemblée nationale nekkoon ci téléphone Mamadou Amar Ndione mbas mi nag li muy lawee fan yii bu baax ci réew mi tax ba ñu bëri xalaat ne est-ce que duñu tëj l'école yi ndax ñenn ñi gis seen ubbee école yi la daal di mbir yi daal di wulee ñaay waaye nag ministère bi dénk njàng mi ñi ngi dalal xel yi nee na ñoom fi mu toll nii xalaataguñu benn yoon ubbi l'école yi te nag bu ko kenn jiñ l'école yi ki ko xam ne nag directeur de la formation nekk tam ki yor kàddu ministère de l'éducation nationale moom Mouhamed Moustapha Diagne newoon woon ca Thiès démb leeral Cheikh Anta ci gis-gisam Mouhamed Moustapha Diagne mi nga xamante ne moom mooy directeur formation ak yor lépp loo xam ne wàllu communication ci ministère bi nga xam ne moom moo yor njàng meeg njàngale mi gis ne wax ñi wax jamono yi ne la ñu fas yéene tëjaat l'école yi dara du ci dëgg. di wax nag ni ministre moom envisagé wul di tëj ay école parce que loolu moom jàng nañu dund ak virus bi xam nañu ni ñuy gérer suñu école jàngale te duñu duñu feebar dégg nañu fan yi ñu pointé école bi parce que dafa am remontée de cas corona li ñu ci mën a wax mooy école ñeenti million ci ay njàngaan ñoo fay nekk xam nga fekkante ni bii foofu feebar bi dafa dugg wax dëgg yàlla du ñu wax ay ay 20 cas ay ay ay cas ñi nga xamante ne bi aussi ñooy ñooy yor mbirum wér-gu-yaram nee nañu bu ñu ko jàngatee fii feebar bi jógee mooy bàyyeeku bi nga xam ni am na ci ci gis ko ci population bi xew yi nga xam dañ koy organiser ay cérémonie xam ni foofu du am benn protocole loolu aussi daf koy indi moom sax nee na am na ay pexe yoo xamante ne teg nañu ko ngir nag ndongo yi nga xamante ne ñi ngi ci l'école yi di jàng duñu benn risque ngir yenu doomu jàngoro ji Mamadou Talla nga xam ne mooy wax na vraiment acteurs yëpp Il y chef d'établissement comme euh, directeur têtes d'école nous veillons veillé ci protocole sanitaire le protocole sanitaire nous avons président autorisé nous ñu dañuy surveiller xale yi ci biir école bi ak ci environnement loolu moom vraiment ministre bi tëdd na ci moom sax mi ngi ciy sàkku ñi nga xamante ni ñoom ñooy syndicat yi parents d'élèves yi ak ñi yëngu ci wàllu njàng mi ñoom ñëpp ku ci nekk taxaw temm nag jàppale jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor njàng meeg njàngale mi ba feebar bi di coronavirus du dugg ci l'école yi RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop jamono jooju nag ñi nga xamante ni ñooy waa Richard Toll nekk ci njàng mi ñoom tiitaange la ñuy amee dëgg école de bu Richard Toll ne nag tiit na na lool euh, pour xale yi ndaxte ñoom dinu sol yi masque euh, te ragal na nag loolu mën na leen jure lorange feebar bi daal leen di dala ñu déglu ko moom euh, directeur école de bruchatol babacar sey ci micro mamadou diagne si deuxième vague bi waaja ñëw coronavirus bi su doon suñu sago dafay yam fii dafay yam foofu mu bañ a egg fii quoi sénégal yàlla muccal ko waaye comme aussi commencé na ñëw te gis nañu mu ngi commencé wulle ñay war nañu taxaw vraiment pour def barrière pour que maladie bi bañ a law fii si école bi parce que école société en miniature la parce que lépp lu nekk si si société bi si école bi lay lay jógee lépp lu jóg si école bi si société bi lay dellu kon ñun tamit war nañu taxaw taxawaay kilifa taxawaay parent d'élève pour aar élèves yi xam dañ ñu ko dénk aar bi nag ñun am nañ si état bi am parents yi am nañ ku nekk daf nga war da nga bay sa parce que bu ñu un contamination Sénégal bi yakule. mooy bugunyu te bugguñu wax dëgg yàlla lu fi amoon di amat ñi dem ba si kanam ñi arrêté jàng bi bugguñu ko te loolu lu waral mooy ñu muccal xale yi muccal xale yi nag responsabilité état bi moo ko ñun ay prestataire service lañ dañuy jàngale weer bu dee ñu fay ñu mais état bi joxe ay matuwaay ba mu mat sëkk waaye gis nañu matuwaay yi am na lu fu mu sooxe mooy masque yi bii pas jotuñu dotation masque jotuñu ko te élèves yi ay 600 élèves la 600 élèves nag mënoo leen jëndal masque xale bi xamul dara bu indul dañ koy wax boo demee góorgóorlu nga indi bu xale bi dëgëra boobu aussi dañuy wax parent bi sa doom suy xëy utal ko ay masque ñett wala ñeenti masque waaye nag jafe-jafe bi situation bi moo metti parent boo xam ne sax mu jënd ak xale yi. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. witex tagal juróom ñetti minute itu yéen ci xibaar yi wax nag ci ndaje bi nga xam te euh, gouvernement bi da koy amal ak taskatu xibaar yi euh, fukki fan ak juróom yu ne euh, tey nag di ñaari yoon bi ñu amal tey ji lay doon kon ci suba gi ministre bi ndenk wàllu wér yaram Abdoulaye Diouf Sarr ak nattangoom biir wàllu mbay mi Moussa Balde nara tontu ci laaju taskatu xibaar yi ndaje boobu nag ci kanam tuuti lay doon bu witex jotee ca building administratif Mamadou Dia wàllu mbay mi sax nguur gi rawatina njiitu réew mi bëgg ñu di aar kër gi di ngeen jël matuwaay yëpp ñu daal nga xam ne daal daañu mën a suqali ko waaye tamit def seen liggéey ni mu waree ci cam campagne njaayam gerte bi ah, njiitu réew mi wax ne nag lañ ñu doxal ah, taxe bi nga xam te ne dañ koy teg ci gerte gi ni yóbbu ca bitim réewam conseil des ministres boobu ba léegi ak i pal yu fa am eh, kii di UGAS newoon ba fii directeur de la cinématographie moom nag eh, daal dinañ koy eh, daal dinañ koy fay jëlee ki ko wutu di Germain Coly nekk li kon directeur de la directrice de la cinématographie moom Germain Coly kon directeur de la cinématographie UGAS nekk léegi secrétaire général Grand Théâtre Doudou Ndiaye Asuman Rose Falco, Sané euh, directeur du Grand Théâtre moutfa Kaysi Bousso Abdoulaye Kondoul, directeur des arts Nek Legikon, euh, directeur euh, compagnie théâtre national Daniel Sorano directeur des arts qui fa nekk direction des arts muy soxna si di wax ci ARMP ñoom dem mu ñu fësal seen rapport yu atum 2018 ak atum 2019 ñu gis ne nag am na ay mbir yoo xam te ne jaaru ci yoon nee na nag ci audit boobu toll na ci fukk ak juróom-ñeenti société ak bérébu liggéeykaay yu aju ci nguur gi waaye nag yées na li ñu jàppoon di téeméer ak ñaar fukk ak yoo xam te moom la ñu waroon a saytu ay kon jalgati daal nañ ko ci nemmeeku ci ni nga xam te ne noonu la yoon sax tërale wàllum joxe marché yi aju ci nguur góor gi Ousseynou Cissé moy directeur des statistiques et de la documentation euh, ci kër gi di ARMP ñu tewlu ko ci jokkoom ak Fama John. contexte Covid bi dafa euh, taxoon euh, euh cabinet yi nga xamné ñom ñoy def audit bi dañu amone jafé jafé pour dem ci yenn zone yi. Mm. légui finalement dañu préconiser won ñu jox leen documents yi par voie électronique ñu xool avec utiliser les nouveaux les nouveaux outils mais daf ci am loolu dafay dafay dafa war euh, tax ñi nga xam ne ñoom la ñu war auditer ñu def effort pour digitaliser seen document de marché yi daf ci am nag Kédougou mooy ñetti commune Kédougou ak benn commune folda bon commune yooyu euh, am jafe-jafe pour digitaliser seen procédures yi. léegi ci lim boobu ngeen ngeen auditer yëpp lan ngeen ci gis gestion bi baax na koppar yi ni mu waree ñu ngi koy defee lan la ARMP gis. bon globalement. am na toujours quelques rëkk-rëkk mais auditeurs yi ñoom seen bopp ñoom ñoo def liggéey bi ba gis ne globalement demee jaar na yoon globalement globalement am na quelques jafe-jafe nag waaye globalement auditeurs yi daal li ñu woon moom mooy euh, lu ci bëri jaar na yoon respecté nañu préalable yi publication bi jaar na yoon appel d'offre yi defe nañ ko niñ niñ ko waree waaye nag am na ay rëq rëq yu auditeurs yi signalé te yooyu détails yi ñu ngi ci rapport yi mu nekkoon Ousseynou Cissé ñu dénkoon ak statistique ak documentation ca RMP déglu ngeen ko ni mu gën a yaatoo bi que moo doonoon gànnuk RFM soir warum rapport ba léegi ak sentif nga xam te ne ñoom nee nañ depuis 2014 daal di ñuy fësal seen i rapport jëm seen wàllum liggéey loolu nag GIABA di koy ñoom naqaru tamit li ñàkk pas-pas gu réew Afrique yi wane ci lu jëm wàllum xeex terrorisme ak koppar ci war a dugal waa Jiaba di kuréel gu ëmb réew Afrique yi jëm ci xeex xaalis bu lew terewul euh, ñoom nag euh, di màggal seen ñaar fukki euh, te somoon la bi di am na Abdourahmane Diallo kuréel gu ëmb ay réew yu nekk ci Afrique sawjant yu jëm ci xeex lu jëm ci wàllum alal ju lewul di ñaawlu réew yi nga xam ne dañu bokk ci kuréel yooyu ñàkk farlu bi nga xam ne yenn saay duñ ko farlu ci lu jëm ci xeex alal ju lewul wala boog dugal koppar ci lu jëm ci wàllum terrorisme Kimela Balou Aba mooy directeur général bu GIABA. La li koy firndeel mooy bi ñu doon xayma réew yi dogal yi nga xam ni joxoon nañ leen ko am na ñu bari ñi nga xam ni respecté wu ñu yenn yi li ni mel a tax sax ñu sonju leen ngir ñu yokk seen taxawaay ngir ñu mën a xeex li jëm ci xaalis bu setul ak xeet googu. c'est parce que notre attente nos attentes ne sont pas totalement comblées. ci Sénégal kuréel gu ñu duppee CENTIF moom moo war di ay rapport atum 2014 ba léegi jàkkaarloowul ak wéy taskatu xibaar ngir xamle mbir moomu fu mu toll ki jiite kuréel googu di xamle lu waral Ramatoulaye ni mel Ramatulaay euh, la loi euh, du Sénégal. Amna loi bi ñu tëral ci atum 2018 ci réew mi daf ñu sonju ñetti weer yu ne ñu rapport ak at bu ne loolu def te ministère des finances ak euh, CA. ndaw lañ koy jagleel waaye nag loi boobu tënkuñu ngir ñu xamal lu ñu nekk di def waaye teskatu xibaar yi daf ñuy neex rek ñu def ko. kuréel gii nga xam ni ay réew Afrique saw jant ñoo ko ëmb te mu jëm ci wàllum xeex xaalis bu lewul di feete ñaar fukki atam ci xew moomu lañu ne di xayma lépp li nga xam ni jot nañ koo def RFM bu Abdurrahman Diallo Abdurrahman Diallo des ba ci wàllum yorenu alal réew mi ak euh, livre bi nga xamante ni Seck njiitu Forum Civil moko ko jaklel euh, jagleel ko Senelec livre nag mu ngi ko tuddee Senelec une entreprise électrocutée ak lii ak Selec Powercom mu wax ne nag war nañ xoolaat ni ni yore kër euh, courant gi ci Sénégal ñu teewlay kàddoom moom Ibrahima Seck ci jokkoom ak ba mu daamaan Warefleur pour apporter une contribution ci naka la ñuy euh, gérer suñu entreprise publique yi rawatina entreprise bu stratégique bu melne ne Senelec ndax coowal euh, Akilee ak Senelec bi mu juddoo dañ ci intéressé wu dañ jàpp rek li première partie là, amna benen partie bu wara a inshallah bu fekkente ne suñu santé may nañu ko ci kàttanu yàlla donc contribution là, pour que faire appel aux autorités yi nga xam nous ñu nànk réew mi ñu dem véritablement vers ay réformes yo avons da fay interpeller système gouvernance entreprise surtout surtout Senelec

contre le citoyen fondamentalement donc y a un système de gestion de gouvernance un contrat yi nit ñi son et au plus haut niveau hein c'est-à-dire que nous avons un organe de contrôle un organe de gestion ils sont impliqués également dans cette affaire là ils ont une part de responsabilité dans cette affaire là Moi, tax di euh, def contribution à Bini pour euh, faire appel aux autorités mais également aux citoyens pour que son entreprise yi de a xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne Thiana sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alaaj Ndiogou Diène loo koy doore. wàllu basket ak afro basket bi nga xamante ni dañ ko jagleel le moins de dix ans yi ni ki démb nag lañ doon amal final bi ci góor ñi ci Égypte ci Caire diggante Sénégal ak Égypte Égypte nag euh, wala bokk Mali na mu ko defee woon euh, ca atum deux euh, ca final ga diggam ak Sénégal noonu itam la ko daal di def ni ki démb mujj am ndam. 80 82 ñaari poñ daal di dox seen diggante donte sax kii de match Sénégal am ay moments yi nga xam xam ne daal moom moo dal di mëne ñaan seeg Salif Sow si kartang Gil gi la tani gi wasaawee Mali am fanweer ak benn Sénégal am fukk ak juróom ñetti poñ gaynde yu ndaw yi le ci bi moonte ñu nga doon góorgóorlu am sax ñaar ak ci kanamu Mali bu amoon fukk ak juróom waaye loola du doy ba match bi ni muy jeexee Sénégal moonte amoon na doole bu baax te it téyewoon na bal bi ci lu yàgg waaye du doy ndaxte ba war ko dugal ci pañe ba rek gaynde yu ndaw yi le koy Mali kon ñaari poñam yi le daf koy téye ba ni bi di jeex waxee juróom-ñett fukk la Sénégal di am Mali am juróom-ñett fukk ak ñaar ba tax na Mali yenn waat na ndam li lay yëkkati coupe bi ci kanamu équipe Sénégal bi nga xamante ni la ko jëlee woon tamit ci tournoi bi weesu gaynde yu ndaw yi lay monte seen tournoi baax na bu ñu jàppandikoo ci li nga xamante ni mooy la tubaab di wax titre individuel Babacar Sané moom mooy ailier bu fa mën Ebou Janko Barji moom tamit mooy pivot bu fa mën ci juróom yi nga xamante ni wàññi nañ leen ci tournoi bi Sénégal ak Mali kon ñoom ñooy teewal Afrique ci coupe du monde basket xale yu amatalul ñaar fukki at yi manam fukki at ak juróom-ñeent bu bari ba bari juillet 2021 lay am ca Finlande Salif Sow ci jigen ñi tamit euh, niki ki lañ doon amal final gi diggante Égypte mi ko organisé ak Mali Égypte nak mom dafa daldi détrôner détrôné équipe bu euh, Mali bi 68 à 63 bi sax modi défaite bu njëkk bi nga xamanteni dal euh, malien yi dal nañ ko am ci googule compétition non itam euh, ñaari équipe yi jotoon final maanaam Mali ak Égypte jot nañu qualifié euh, ci li nga xam te ne daal moo di euh, coupe du monde bu seen catégorie Sénégal ma nga ci woon di ci yëngu ci jigéen ñi moom nag ci ñetteelu place bi la daal di kon bokk yam kon daa may may ñu gars yi dara organiser. jël ko ci góor ñi jigéen ñi wa non Mali Mali moo ko jël ci góor ñi. Mhm. ci jigéen ñi Égypte ko jël voilà mi ngi noonu kon ñu daal di wax ci leneen alaaji mhm. di wàllu football Ligue des champions fu mu toll ni nag équipe yi nga xam te ñoom ñoo qualifié ci 16e de finale daan nañ leen xam ni ki démb gannaaw ba amal maanaam journée bu mujj mujj ci match de groupe yi Real de Madrid nag moom démb dafa daal di fudd mujj am ndam ci digganteem ak doomu Allemagne yi di waa Borussia Mönchengladbach ñaari bal ci dara ñaari but yëpp ka ko dugal nag moo di Karim Benzema ab mbëkk la ñoom nag daal nañu qualifié ci wàllu huitième de finale doomu Allemagne yi donte nag ñàkk nañu ñoom yi dal nañu mujj qualifié itam ci li nga xam xamante ni moo di euh, lii di euh, huitième de finale yi la ko waral Inter de Milan mom démb ci dëkkam ci Italie dafa daldi match nul diggante mag doomu Ukraine yi di waa Shakhtar Donetsk ku ci nek jot naa euh, wala bok zéro partout lañu daldi def ci groupe C bi Olympique bu Marseille mom itam daldi na ñàkkaat ci diggante mag Manchester City donté ci ndorteelu jongante gi amoon na ay chance mën a qualifié ci li nga xam modi Ligue Europa waye dañ leen mujj daan ñetti bal ci dara kii di Olympiakos bu pop Abdou bachi ak Ousseynou Ba ñoom nag euh, danañu daldi di li nga xam te Ligue Europa donté ñom itam ñak nañu ñiki ki euh, seen nekk ak ñi di waa FC Porto ñaari bal ci dara lañ leen dal di daan ci groupe D bi Atalanta bu Bergame moom moo dal di kon bokk foqati ñaari lu ticket bi qualifié ci wàllu huitième de finale ñoom euh, Diki démb dañoo daal di am ndam seen diggante ki ñuy waa Ajax Amsterdam benn bal ci dara Liverpool mi nga xam te ne qualifié woon na ba pare dafa daal di mujj match nul ak ñi nga xam te ñoo di Maitland ku ci nekk jot naa dugal moromam benn but ki di Mohamed Salah moom moo jot a bitu équipe bi di euh, Liverpool ci groupe H Paris Saint-Germain moom itam daal di foqati euh, place bu njëkk bi ci doomu Allemagne yi di waa Leipzig ni ki Paris Saint-Germain moom dafa daal di am ndam du yaa ci diggante mag Istanbul Başakşehir bu Demba Ba juróomi bal ci Ben Neymar jot na dugal ñetti but doublé kii di Kylian Mbappé leneen nga xam ne daal mën nañ ko wax ci wàllu jongante yooyu la moo di lii di tirage au soor huitième de finale yi ni ki altine gi lañ ko nar a amal ngir mën a xam waaw wala déet ku ci nekk kan nga nar a tasel ci yooyu la jongante ñu daal dellu suñu réew alaaji daal mm-hmm. dem ci Diofior ci région bu Fatick ñoom nag daan nañu am ab state municipal bi nga xamante ni dañ ko daal di defaraat ba mu gën a jekk ndax daan nañ fa tabax ab tribune moderne loolu nag euh, ñu ko tabax moo di waa PACASEN di ab kuréel bi nga xamante ni daal euh, banqaasu état bi la di yëngu euh, ci lu ni mel ñoom sax nee nañ dana amaat yeneen jumtukaay yi nga xamante ni dañ ko fas yéene tabax ci biir stade bu commune bu stade municipal bu Diofior ñu ànd maire dëkk ba di Youssou Diom ci micro Aminata Goudiaby parce que dafa am benn projet bu ñuy wax PACASEN moo tax ñu seet lu xam ne moo gën a am njëriñ lu gën a am lu nit ñi gën a soxla ñu commencé tabax boobu pour Pakaseen bi mooy donc stade bi tey ak place publique bi stade bi nag la ñu nekk tey projet bi duñ ko xayma mot na 64 millions mais liggéey bi dafa taxawoon parce que 2008 la démarré bu Pakaseen bi ñëwee lañ ko achevé les jeunes aussi gis nañu seen bopp à chaque fois dañ doon wax ne amuñu fu ñu footballé amuñu fu ñu fu ñu fu ñu fooyee léegi nag defar nañ leen ko stade bi ni ngeen ko gis ni tribune bi pare na mais lu des moi, tout juste ñu aménager terrain bi pour mu nekk un terrain multisport c'est-à-dire dina nous servir aussi bien pour pour football bi mais aussi dina servir pour lamb bi liggéey boobu confié nañ ko bariwul mooy tout juste dindi mur bi ndaw bi nga gis ni ak defar terrain bi euh, incha allah semaine bii di ñëw dina ko démarrer mais lu gënoon a am solo daal moo nekkoon tribune bi ok kon bokk alaaji fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf sëñ Cheikh ñeen ak jaam jërëjëf. pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Anna maa ngi nuyu mbok yi njiitu réew mi Macky dogal andi ay ci euh, secteur de la culture bi euh, ay direction ak i euh, bërëb yu bëri dinañ am ay njiit yu bes ku ci melni Khoudia Diagne ba fi conseillère ci walu affaire culturelle mom moy directrice des arts ki nga xamantene mom la fa utu di Abdoulaye Koundoul moy théâtre national Daniel Sorano war fa liggéeyee ak promoteur culturel bi di Keysi Bousso mi nga xamantene moy euh, doon PCA bu gestion bu Grand Théâtre de Dakar euh, Momitam legui dal di Ansoumana euh, ndaw mu secrétaire général bu Grand Théâtre Buffy directeur de la cinématographie Mon ki ko direction Bobule di Germain Germain Colli la conseiller culturel Diapeleni Itamni, itam Racine Senghor Nekotul ci monument de la renaissance professeur de lettres bilé, moom mooy Legiti Demtial, ci Ousmane Sow Uchar, comme euh, président conseil d'administration du musée des civilisations euh, noires jamono yooyu musée bobé sax mu ngi magal euh, ñaari atam ñu ñuy euh, xamal ni sax ap magazine américain bu siiw daf ko classer ci téeméeri musée yi nga xamantene ñoo ëpp solo ngir ñu war leen mëna visiter ci aduna bi yépp Ndate Diop. ñaareelub atam mu dund ko ci ay jafe-jafe yu tombeek mas bi di Covid 19 waaye taxul musée de civilisations noires ñàkka a matale la ko taxoon a jóg naam su fekkee ni œuvre yañ fa samp ak public bi yëgoon nañ ko bu baax a baax. Amady Bokoum moom mooy directeuru musée bi. pendant juróom benn weer yi ci ginnaaw métti woon na loolu ci ñun du sax tëj bi ñu ko tëj waaye ñàkk bi nga xamante ni daan nañ fay daje ak tamit di gis œuvre d'art yi lu ñu manqué woon la moo tax président de la république ba mu ne nun nañ dund ak doomu jàngoro ji xabaar boobu lu neexoon la ci ñun. un grand naam jafe-jafe yooyu dund nañu ko waaye musée bi ak atam yu néew bokk na ci gën a ràññeeku ci àdduna wërngal këpp Abdoulaye Diop jëruñ ji njëkk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak communication di ko béral. le classement du musée ni mu bokkee ci téeméer musée yu gën a visité ci àdduna bi wone na solo bi nga xamante ni am na ko ci gët spécialiste yi yëngu ci wàll woowule. mu di bërëb bi denc suñu moomeel ci wàllu aada ak cosaan di maanaam suñu kàggu jëm ci wàllu aada ak cosaan Abdoulaye Diop jëwriñ ji di ci yokk ni nekk na tamit luy màndargaal suñu yokkute ci wàllu science wàllu koom ak wàllu dund. ak dundinu askan wi. ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen it mbokk yi ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci dañ ci coronavirus jël yoonu place Soweto ne sarax ci biir pencu ndaw réew mi assemblée nationale kay bi di laas ko ne deuxième vague bi jañax na bu baax assemblée nationale ndax faat na fa benn député soxna Marie-Louise Diouf honorable député Mamadou Lamine Diallo it jàngoro ji dugg ko ba mu xamle ko teg ne mu ngi sant sunu borom bu baax waaye di sàkku ci ñëpp ak moytu ñeel coronavirus las ne assemblée nationale dàqun fa sax xalaatu amal fa ay test ci lu yaatu plénière moom léegi ñu ne ci tëju lañu koy def maanaam gën caa bari ñaar fukki député koy fay teewee les échos ne tiitaange dugg na ci assemblée nationale ak virus ba fay wër benn député faatu fa Mamadou Lamine Diallo amee jàngoro ji yéenekaay bi ne am na député diaspora boo xamante ni amee woon na ko it amit ñu nu ko njortal les échos dafa laaj ne ndax du nu fa yegg sax ba ci teste ñëpp maanaam xool yaramu député yëpp ngir xool amee nu am déet jàngoro ji jàngoro nag bokk na ci li ko mën a fànqalaw askan am cet cet ci fànn yëpp waaye set ci wàllu dëkkuwaay yi te mooy xëy na cetal gi nu fi jógtee woon ci njiital président Macky Sall duppe ko cleaning day mooy dafa njort ne balaa ndakaaroo mel ni Kigali dina yàgg de ndax dafa mel ni lépp la tegaat ci suuf donte xalaat bu rafet la woon tukkee ci président Sall ci ñuy wagas loxo yi di setal suñuy dëkkuwaay ak li ko wër waaye directeur du cadre de vie Oumar Ba ne dee tegunu lépp ci suuf daa fekk ni doxalin wi la ñu soppi maanaam jëfin wi Covid 19 nag du assemblée nationale rek la tere nelaw waaye borom kër yi yëngu ci wàllu hôtel yeeg wàllu tourisme yi Sénégal ne lii raam la jëm sunu ci

ci réew mi boobe pétrole ak gaz sunu sukkandikoo ci rapport kuñ naan Johnny West fondateur Openoil ci yéenekaay bi di enquête ma nga ca naan dara la dul yokk ci koppari askan wi la ko sooke bokk na ci véhicule électrique yi ca ko mooywul mu ne Petrosen ci bor yu metti la jëm gaz bi mu ne njëg yee wàcc ndax àddinaa ci am lu ne gàññ la tribune ne loolee de xibaar bu naqari li ci Sénégal ci lépp nag Covid 19 secteur bi du lu muy yokk ci sunuy koppari askan du lu muy ñu nar a ci sunu bor bu diis bi bor boo xamante ni beneen milliards yi dollars dina ñëw tegu ci lépp nag war a tax ñu gën a ñoŋal koppari réew mi gën a xeex ak njubadi diggi ci ñenn ñi waaye daa mel ni ba fii Sénégal garabu sàcc gi war a téye loxo yi ñenn ci ñu nu dénk ama gunu ko rapport ARMP 2018 2019 firndeel na ko observateur xëyee ko ne càcc gu kawe lañu fi gis xiini mii ni ci wàlluy marché logiciel contrôle parrainage ga fi woon ak it ay cartouche encre ngir présidentiel ga fi woon ci ajurut ñu ne wuuteeg ñaar fukki milliards jëm ci lu ñeel BRT gi dépassement ñeenti millions ñeel defaratuk appartement ministre intérieur ministère de la jeunesse et ay marché équipement sportif une fois barré, société d'études de travaux techniques pour abdakar ay à ci marché bleu lu milliard milliards ak ñaari millions libération et ARMP ay de dëgg la génne qui posit ci misal, ak l'endem, niel 946 millions ca SNR marché produit d'entretien à qui pile électrique une fois facturé a ak Apix ak xiini miini ci milliards yu ne ci dépense terbi TER bi ak liggéeyu ministère environnement mon marché fukk ak millions une, ngir le quotidien ne audit ARMP yi na it jàpp ministère bu ci mel ni bi ñu dénk économie ak finance ministère intérieur LONASE ak ñeneen ak ñeneen wàllu xëy ci réew mi ak jafe-jafeem laas ne mbootaayi syndicat yi ci réew mi ñu ngi waajee yëngu-yëngal ndax ñu ne patron yi jalgati saa su ne ak ak yelleefu liggéeykat yi ak état bi ne nemm rek mel di móol bu tege central syndical yi dàqunu xalaatu amal grève générale ci réew mi nag xayma gi ci limub xëy yi nga xamante ni covid 19 bi na saxal na ko fi le xëy jàpp ne onze mille la fukk ak benn junni yu seeni boroom ñàkk seen xëy universel plus

ministre gi dafa pàccal ci ci gën a na mi di corona dugg na ca pencum ndaw réew mi ba faat fa sax benn député bu jigéen waral ki di fay jëli matuwaay ngir sàmmonteeg tegtal waa ngir mucc ci ji mu fekk jamono ministère bi yor mi di dala xel yi leeral ne xalaat guñu fi mu toll ñuy tëj école yi ndax nag jël nañ ngir eh, mi law ko ci école yi di kuréel gi yitewoo njoxem liggéey aju ci nguur gi génne seen rapport 2018 ak 2019 ay jalgat yi ñu ko ñeel wàllum sart yi yemook JABA kuréel gi xeex setal xaalis bu lewul ci Afrique di naqarum li sentif geneen kuréel gi di te wàllu yoro xaat ci réew mi génnewu rapportam depuis atum 2014 mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadj Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak euh, Abdoulaye Diop ci machine bi ñuy gërëm bu baax euh, Yacine Pouy nekk ci digital bi ci kanam tuuti seen émission penco El Hadj Assane ngeen ci àndal mu ci dalal nag ci waxtaan wi Khalifa Gaye directeur des bourses ci ministère enseignement supérieur ak euh, kii di imam Oumar El Hadj Oumar Diène imam Oumar Diène di secrétaire général association des imams et oulémas du Sénégal kon mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg RFM di leen ñaanal yendu jàmm